Euh, concernant les nga qui la page 92 un dangereux discours ethniciste et tribal Ousmane Sonko depuis toujours tente d'instrumentaliser ses origines liées à la région naturelle de Casamance pour saper les fondements de l'unité nationale il dit je cite Macky Sall n'aime pas la Casamance. Je maintiens mes propos, réitère-t-il le 10 juillet 2022. Jamais il ne dénonce ouvertement les exactions commises par le mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, sur les civils et les soldats de l'armée. Quand, en février 2022, quatre militaires sénégalais sont tués et sept autres pris en otage par le chef rebelle Salif Sadio, M. Sonko est le seul acteur politique sénégalais à ne jamais condamner les faits qui émeuvent tout le pays tentant d'opposer les Sénégalais, ayant le même destin au sein de la nation unie et plurielle en février 2022, il affirme que, je cite, Macky Sall n'aime pas la Casamance et les Diola. Félicitations des propos d'une infinie gravité qui secouent tous les républicains et tous les patriotes. M. Sonko ne les retirera jamais et n'exprimera aucun regret à ce sujet. Il les martèle de nouveau alors qu'il alors qu'il présente ses condoléances à la famille de manifestants tués à Bayona, La déclaration provoque un tollé. Il n'empêche, le jour de la fête de la Tabaski, grande fête musulmane en 2022, il persiste ici. En réalité, sur cette question, Ousmane Sonko a de la suite dans les idées et avec, des, avec, avec ses sorties récurrentes. Il cherche à faire avancer le dossier d'une plainte déposée à son initiative devant la Cour pénale internationale CPI contre le Sénégal pour les actes de, discrimination, de génocide et d'ostracisme contre les peuples de Casamance, en particulier les Djola. Il s'agit d'une série de plaintes contre l'État du Sénégal et la CPI. La première plainte demande une enquête sur la mort de 14 civils à l'occasion des manifestations de mars 2021, quand il s'était agi pour ses partisans de s'opposer à la comparution d'Ousmane Sonko devant la justice sénégalaise pour répondre des griefs de sévices sexuels portés contre lui par Adissar. Une plainte annulée par la CPI considère que les autorités légitimes de l'État du Sénégal ont le droit d'assurer le maintien de l'ordre dans une situation où un leader politique appelle publiquement à l'insurrection et au renforcement des, des, institutions élues démocratiquement. Ainsi, la plainte d'Ousmane Sonko n'est accompagnée d'aucun élément de preuve pouvant étayer l'incrimination ou attester d'une action légitime des forces de sécurité. Il faut dire qu'Ousmane Sonko ayant communiqué sur l'objet de cette plainte que la CPI, par la voix de Fatou Souda et de son successeur Karim Khan, répondra être en train de mener des investigations. On connaît la suite. L'autre plainte relative à des allégations d'Ousmane Sonko selon lesquelles l'État du Sénégal chercherait à le tuer et cela anéantirait les espoirs de la Casamance il ne fournira aucun élément pour appuyer sa plainte qui sera également déclarée infructueuse. La CPI invalidera les différentes plaintes parce qu'elles n'apportent aucune preuve préalable pour le déclenchement d'une enquête, à part des vidéos de nervis et d'hommes en civil qui tirent sur des sites d'autres civils. Seulement, c'est la plainte déposée contre l'État du Sénégal et les Sénégalais pour discrimination qui suscitera le plus mois. Ousmane Sonko se gardera de communiquer sur cette nouvelle plainte de cette page en date du 4 février 2022, dans laquelle il accuse l'État du Sénégal et les Sénégalais de discriminer les Casemassés, deux points, les Diola, Mandeng, Souninke et Manjak. Ne sont pas traités comme le reste de la population. Les Sénégalais ont des préjugés les empêchant d'accéder à des postes importants. Ousmane Sonko soutient également que le président Macky Sall méprise singulièrement les populations Diola. Il pousse les allégations de, de stigmatisation jusqu'à écrire que le chef de l'État du Sénégal considère ce peuple comme des paresseux qui passent leur temps à boire de la pierre à base de riz. Ousmane Sonko considère notamment que le système est organisé de sorte que les populations de Karamas n'ont pas accès aux plus hautes fonctions de l'État du Sénégal et que ces mêmes populations n'ont pas un accès aux ressources et infrastructures publiques au même titre que les autres populations du pays. Le procureur de la CPI, Karim Khan, ne pouvant croire en de telles accusations que n'accompagne aucune preuve de fait précis ou même de l'enregistrement d'une déclaration du président Macky Sall allant dans ce sens. Aussi, le procureur, qui semble bien connaître le Sénégal, ne peut s'imaginer que des populations sénégalaises soient traitées comme des Rohingyas ou des Ouïghours, par exemple. En outre, l'image positive du Sénégal à travers le monde n'autorise pas à croire à ces allégations. Karim Khan demandera à différents experts de l'ONU leur avis sur le sujet et, de façon unanime, ces derniers lui indiqueront que les accusations sont fallacieuses. La question provoquera même une empoignade entre des agents de nationalité sénégalaise. Une dame et un homme. C'est une dame et un homme. Voilà. En effet, certains experts sénégalais seront outrés d'entendre rapporter de pareilles ignominies sur leur pays alors que notre de, le, concitoyen leurs concitoyens Ousmane Sonko et qui travaille au département humanitaire de l'ONU à Genève tenait court que court à amener la CPI à instruire la plainte. La plainte sera ainsi invalidée à l'instar des autres. D'autant que le bureau du procureur ne prendra les plaintes au sérieux et ne jugera même pas utile de les communiquer au Sénégal. Mais Ousmane Sonko ne lâchera pas pour autant ses actions devant l'ONU. C'est ainsi que le vendredi 17 juin 2022, le jour de la marche interdite de la coalition eu askanoui ses soutiens dans les artères de l'ONU, réussir à faire convoquer une réunion extraordinaire par Zoom pour suivre en direct les péripéties du refus par de la police de le laisser aller à la mosquée prendre part à la prière du vendredi. L'allégation de l'empêcher d'exercer son culte religieux a été évoquée et on aura compris qu'Ousmane Sonko, en décidant d'aller prier ce jour-là, n'en est pas moins dans une mise en scène pour vilipender le Sénégal et se poser en victime d'ostracisme. Il cherchera à s'adresser à l'opinion publique internationale en publiant un tweet en français et en anglais, avec une vidéo de ses échanges avec les policiers lui conseillant de retourner à son domicile, le tout dans un plan blanc immaculé. Passage B, passage doy pour la Ousmane Sonko la Vous naa les donne des faits donne des dates précises Ousmane Sonko ma demal nee na daa mës di jël ni mu nekkee joolaa ngeen baal ma dinaa ko wax parce que pour expliquer mu leer je suis pas en train de systématiser qui que ce soit tant d'instrumentaliser ses origines liées à la région de la Casamance c'est-à-dire li nekk djola de Casamance le bëgg utiliser pour mab li nga xamante mom moy taxaway bi réew mi taxaw am ci digënté waaso ak xeet mu wax moom Ousmane Sonko moo wax ne Macky Sall bëggul Casamance ne li ma wax maa ko wax mi ngi ko wax le 10 juillet 2022 te pourtant Ousmane Sonko mësoo leen ko dégg mu yëkkati baatam dénoncé kenn ku MFDC rebelle kenn ku ñu rey wala ñu jàpp la comme ni mu demee woon février 2022 ñeenti militaire yi ñu reyoon ak juróom ñaar yi nga xam ne Salif Sadio jàppoon na leen otage moom kot mooy acteur sénégalais boo xamante ni yëkkati na yëkkatiwul làmmiñam méttit ko wala mu naqarlu ko moom kot jéem na féewale sénégalais yi yi nga xam ne dañoo tànn dëkk ci dëkk boo xamante ni ñëpp dañoo booloo bokk bokk benn gëm-gëm bokk benn gis-gis ak fa ñu jëm de la nation unie et plurielle nekk joola nekk séeréer nekk manjaak nekk balant nekk tukulóor nekk wolof nek nek nek nek nek nekk dans la pluralité nous avons réussi à consolider une nation unie waaye Ousmane Sonko moom jéem na féewale moom li nga xamante mom moy sénégalais il affirme mu wax ni Macky Sall n'aime pas la Casamance et les Joola xam nga fé Casamance la fi da fay ñëw yeggali mu né Macky Sall bëggul Casamance bëggul Joola yi ay ay wax yu ay wax yu graw yu ñaaw mi ngi ko wax février 2022 mesul dindi wax ji mesul reccu wax ji mesul arrière ci wax ji au contraire day gëna sol rek mu dem tej bi ñona ci ben manifestation bo xam dañ dañ fa rayon ben manifestant mu dem tok def fa déclaration bo xamante ni bu jégg dayoo la ne Macky Sall dafa am problème ak cadre yi surtout ñi nga xamanteni dañoo yor ay sant joolaa La déclaration provoque une tonnerre. Il n'empêche, le jour de la fête de la Tabaski, 2022, nous persistons, signons signé même en réalité sur cette question Ousmane Sonko a de la suite dans les idées et avec ses sortes récurrentes il cherche à faire avancer le dossier d'une plainte yo xam Ousmane Sonko du ko yóbbuwoon fi nga xam moy cour pénal international ma jàmbal li ci ñew plainte bi jitu moy ban plainte bi jitu <coughs> mars 2021 la neen dafa plainte président Macky Sall voilà dafa plainte pour ñu def enquête ci déwu 14 civil ci manifestation bo xam dafa amon mars 2021 moy moment bi nga xam ni ay partisans jóg nañu ne Ousmane Sonko du wuy ju yoon devant la justice sénégalaise donc donc pour pour pour ses services sévices sexuels portés contre lui par Adji Sarr plainte boobu CPI da ko tegee ne lan moo tax parce que nee nañu Sénégal am na droit assurer la maintien de l'ordre daa une situation où un leader politique appelle publiquement à l'insurrection dañoo déglu discours Ousmane Sonko le combat s'annonce mortel ñu gis xale liñ ñu def gis répression bi CPI tegee ne plainte bi ne Sénégal am nañu droit ku jóg woote li nga xamante ni mooy mortel combat takk der yi jóg jàmmarloo yow kon buñu ñu joxoñ baaraam takku der nañ joxoñ baram ñu ñu woo jóg ñu gën dem di deewi loolu moy dëkk aussi la plainte ce pays annulé la plainte bi aussi parce que plainte bobu amul benn preuve bu mu andal bo xamanteni ni day attester une action illégitime des forces de sécurité amul donc euh, ñu continuer mu plainte beneen plainte bo xamanteni ni selon lesquelles à des allégations d'Ousmane Sonko selon lesquelles l'État du Sénégal chercherait à le tuer et cela anéantirait les espoirs de la Casamance mu defaat beneen plainte boo xamante ni dafa ne Sénégal dañ may jéem a rey état du Sénégal dañ may jéem a rey vidéo bon n'a leen ko démb moment bi nga xam mi ngi wax naan dañoo jéem a wekki ay ay huissier podoom à chaque fois que mu def loolu day ñëw ci manifestation jéem créer lu mel noonu donc pour jël vidéo yi jëm ko tasaare donc mais il ne fournira aucun, aucun élément pour appuyer sa plainte qui sera également déclarée infructueuse. Nous disons plainte de Donc, euh, la CPI invalidera les différentes plaintes parce qu'elle n'apporte aucune preuve préalable pour le déclassement d'une enquête à part des vidéos de nervis et d'hommes en civil qui tirent sur des civils. Donc, plainte une La CPI déconnée parce qu'il pas de preuve. Donc, seulement, mais plainte, je ne sais pas c'est la plainte déposée contre l'État du Sénégal et les Sénégalais wax naa ne ko ba taay ma jamal ñoo la jox leen date bi Ousmane Sonko daa plainte sénégalais maanaam Sénégal ak sénégalais yi ci lan lu tax nee na discrimination boo xamante ni maanaam dañoo beddi l'État du Sénégal et les Sénégalais li mbir plainte bi daa lii de l'État du Sénégal et les Sénégalais de discriminer les Casamançais les Joola Mandeng, Soninke et Mandjag ne sont pas traités comme le reste de la population. Les Sénégalais ont des préjugés les empêchant d'accéder à des postes importants. Voilà ce qu'il a écrit dans la plainte le 4 février 2022. Les Sénégalais ont beddi li nga xamante Casamance nee na mandeng yi soninke yi ak manjag yi jëluñu leen def leen comme yeneen sénégalais parce que sénégalais ont am bët bu ñu leen di xoole ba tax sax moo xam ba tax sax nag poste yi nga xam ne ay poste yu am solo la kenn du leen fa yóbbu lii moo ko bind billahi wallahi le 4 avril 2022 yóbbu ko à l'international jébbal ko waa CPI Ousmane Sonko soutient également demul foofu de que le président Macky Sall méprise singulièrement les populations Joola ne Macky Sall dafa bañ moom waxul sax man jag ak yooyu mais joolaay la Macky Sall bañ nee na Macky Sall moo joolaay dañoo tayal seen temps yëpp dañ koy naanee bunub wala kañ wala sum-sum c'est ce qu'il a dit comme des paresseux qui passent leur temps à boire de la bière à base de riz ngeen wër vidéo Macky vidéo yëpp ngeen xool fan la ko Macky Sall lu mel il l'a écrit il l'a écrit et à la CPI def vidéo def ay tweet def ko anglais et français bu ngeen un ngeen delluwaat ginnaaw ngeen xool Fini réew yëpp wax Casamance day am day am day am ci bind ci en français wala ñu bind en anglais parce que fa la ko bëggoon yóbbu donc Ousmane Sonko considère notamment que le système est organisé de sorte que les populations de Casamance n'ont pas accès aux plus hautes fonctions de l'État du Sénégal et que ces mêmes populations n'ont pas un accès aux ressources et infrastructures publiques au même titre que les autres populations du pays moo ko le 4 février 2022 bind ko CPI mu ne mu persister si mu le système système sénégalais dañ ko defar defar boo xamante ni population maanaam ñu dëkkee Casamance amuñu amuñu maanaam loxo boo xam ni moom la ñuy yóotoo li nga xam mooy fonction yu rëy yi ci biir cadre Sénégal yi am Sénégal mooy comme DG comme préfet comme gouverneur comme nangam les hautes fonctions mooy les grands commis de l'État nee na Casamance ñun ñun sénégalais yi dañoo beddi Casamance mel ni Casamance bokkul Sénégal lii Ousmane Sonko ko bind le 4 février 2022 jébbal ko ñi nga xamante ni moom mooy moom mooy CPI. donc le procureur de la CPI Karim Khan ne pouvant croire en de telles accusations que n'accompagne aucune preuve de fait précis ou même de l'enregistrement d'une déclaration du président Macky Sall allant dans ce sens ba mu le procureur Karim Khan bi nga xam moo yor yoonu si pays dafa tiit ba ni comment nan la mën a bindee lii indiwoo bind lu président Macky Sall bind wala mu wax ko nit enregistré ko wala mu def ko vidéo nit jël ko filmer ko amul dara waxi neen donc ainsi le procureur qui semble bien connaître le Sénégal procureur bi nga xam ne xam na Sénégal bu baax mënul xalaat benn yoon ni Sénégal day mel ni comme fële nga xam ne ay Rohingya ak ay Ouïghour la ñuy jël di sànq donc foofu laa yemagum après dinaa ñëw ma gën a leeral pour ñëw ci yeneen yi nga xam ne wax na ko bind ko donc incha allahu taala on continuer le livre de Madiambal Diagne pour wax ko Sénégalais yëpp ñu xam ko donc amoon mbégte lool euh, sant leen bu baax a baax gërëm leen nous sommes